aca l'entrée de Rogaye Aja Rogaye Aja a sipa kam xel ne Fimela la fa série de Simal ndeysaan suma ne Simal sama xel day dem ci grand Babacar Fall le douanier maa ngi koy bëggee suma ne Simal sama xel day dem ci suma grand Abdourahmane Ndong l'entrée de làmb làmb ak la mu ko làmb xam làmb bëccëgu ndar kàmb naaj ba di lakke dafa mel ni daam lu ñu fàtte